إن الذين بايعوا الرسول بخدمة قد بايعوا الجليل asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu euh, ñu ngi fii ci kër xaside yi nekk ci université bi ci euh, kër xaside yi nga xam ne daari is bu tarxiya moo koy liggéey ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ñu tàmbali nag liggéey bi boobaak léegi tey euh, ñu toll ci li nga xamante ni mooy collage u bu mag bi nga xamante ni moo nekk ci kaw jëriñ daari ji ñëwoon doon fekkee si jeexitu liggéey boobu di seetluwaa fi nga xamante ni fa la toll Euh, ñu ànd ak ñi nga xamante ni ñooy techniciens yi nga xam ne ñoo koy liggéey gannaaw bu ñu leen jëfalee te di leen sant bu baax ci taxawaay bi moo am ay leer yoo xam ne dinañ ko sàkku ci jëwriñ daare ji suñu su ginnaaw nuyoo bi ñu gis ne bâtiment bi tey ñu ngi toll ci coulage yu li nga xam ne mooy xubba bu mag bi loolu nag ko ko wax day mel ni li ñu tàmbali woon ci suuf ak léegi day mel ni yegg nañu fi nga xam ne moo gën a kawe ci barab boo xamante ni bu ñu waroon a liggéey jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëfe Cheikhana Ahmadul Khadim jërëjëf asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëfe Cheikhana Ahmadul Khadim kon tey bis la ci bis yi rawatina ci waa Hizbut Tarqiyyah ndax tey bisub àjjuma ñeenti fan ci weeru novembre 2022 dëppook juróom-ñeenti fan ci Rabiu Saani junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ñeent ci gàddaay gi bis la ci bis yi ndax boroom tubaab bu la joxee ndigal nga songeeku ku yitte xam ne murit bi moom deful dara lépp sëñ bee koy def dalay sagal ngir sa yitte feeñ ndax yitte moom moom la ñu wute yàlla suñu borom himma euh, waaye lépp sëñ bee koy def loo mën rek mooma kon euh, sunu kilifa ga sëñ aatu yal nañ ko yàlla fayal gis-gisam pas-pasam ak fitam ak gëmam sëriñ bi ba nga xam ne keroog bu ko sëriñ bi di sant ci avril deux mille vingt ñu nekk kër Seexul Xaddim di kër mag moom sëñ bi ne ko euh, këru xasida gi ñuy liggéey dama bëgg nga xam ne xayma bi ñeent fukki million la woon waaye yow xam naa sa xër may naa la mu àgg ba juróom benn fukki million waaye na fa yam nag siyaat ne ko ah Mbakke dimbali ñu rek bu mu yem fenn téeméeri million ba milliard ndax xam nañ ne Sëñ Tuubaa mënuñoo jot ak xam waaye may ñu rek ñu ñett ñetti diggante téeméeri million ba milliard sëñ bi diggante bi euh, jaar na fekk ñun foo xamante ne lépp lus di yërëmee ab taalibe rek yërëm nañu ko waaye ñun xam nañ ne sëñ bi mu yërëm ñu moo ñu amal njëriñ waaye ñu yërëm suñu bopp amul njëriñ moo tax Sëñ Atou fa mu taxawoon mosu faa jóg projet bi moo tax tey jii euh, wax dëgg yàlla di wax téeméeri million ba milliard mu ngi suñ ginnaaw ndax moom Sëñ yàlla suñu borom dogal na bi muy wuy ji boromam rek fa mu àggoon weesu na milliard loolu kon tey jii xanaa dañ naan euh, war nañoo laal ñaari milliard loolu du dara milliard moom euh, du li am solo xam ne liggéeyal Sëñ Tuubaa amul njëkk loolu mooy li am solo tey kon lépp luy parti génie civil euh, àgg na tey incha allah ci ndimbalal sëriñ bi ak ci kàttanu sëriñ bi loolu nag dafa mel ni ñu ngi soog a tàmbali ndax liggéey moom ñaari xaaj la partie gros ak partie seconde œuvre ku ne xam ne ne fii ñuy dugg nag mooy liggéey bi dëgg ndax seconde œuvre bu ñuy wax valeur u bâtiment bi ci gis-gis bi ci sëñ Atou amoon muy un bâtiment intelligent muy barab boo xam ne day denc ay téere te ku ne xam ne téere dafa bari ay exigence ci wàllu euh, lépp loo xamante ne war nga ko bàyyi xel ci luy sàmm téere bi ak lu koy aar te téere boo xam ne ñetti téeméeri at juróomi téeméeri at bu ñëwaatee war nañ ko fekk mu mel na mu meloon loolu dafa am ay exigence loolu kon ñun xam nañ loolu ba intégré nañ ko dans les études moo tax fii ñu toll nii liggéey baa ngi soog a tàmbali <laughs> loolu nag suñ ko waxee war nañu xam ne Euh, liggéeyal sëñ Tuubaa moom njëg gi mooy lim ñu jarale ndax lama ma tàmbale woon léegi nee naa sëñ bee koy def ndax yow tey jii boo jëlee revêtement nga ne revêtement intérieur da nga war a bàyyi xel bâtiment bi luy tax li ne ci biti dara du ko gàllankoor ci luy dugg moo xam du bruit du poussière du dara loo xam ne ba ci ay rayon yoo xamante ne ultraviolet yoo xam ne da koy aaree bâtiment Euh, revêtement aussi extérieur war nga ko defal revenement boo xam ne ku ko gis ndax batiment bi symbole la batiment bi référence la bâtiment bi boo duggee ci université bi rek da ngay xam ne université l'islam la waaye université Cheikhul Khadim la mais warul doon un bâtiment boo xamante ne boo ko xoolee mu niroog yeneen bâtiment yi waaw loolu nag kon ñu ngi ciy sant yàlla ci vision bi ak ci tamit euh, toutes les équipes techniques di tàmbale ci ñiy xalaat ba ci ñi nga xam ne ñooy en œuvre kenn ku ci ne la nga mën def nga ko ci ba jeex takk kon di santaat suñu borom bu baax te xam ne li ne suñu kanam nag euh, mi ngi nii wax naa revêtement waaye climatisation xam ngeen ne du caaxaan ci édifice bu mel nii rawatina fuy denc ay téere euh, xam ngeen ne informatique ak réseau liggéey la boo xamante ne waajal nañu système de cablage yi waajal nañ lépp waaye dafa war a doon un bâtiment hyper intelligent ci côté vidéo surveillance doo ci xeeb dara ci côté sécurité incendie doo ci xeeb dara contrôle accès lépp da koy fàggu ah, boo jëlee tamit wallu euh, ascenseur tey ji bâtiment la boo xam ne prévoir nañ ko ci prévoir nañu tamit lu jëm ci système de rayonnage yoo xam ne am na rayonnage mobile am na rayonnage fixe waaye yoo xamante ne dafa côté ergonomie ak côté euh, li nga xamante ne mooy capacité de parce que téere yi sëñ bi tuddoon na ba tudd hangar kon boo bàyyiwul xel loolu doo mën a denc téere yu bari kon tamit nañu xam ne lépp lu jëm ci menuiserie lépp lu jëm ci électricité moo xam muy métallique moo xam muy bois moo xam muy muy muy muy wàllu yeneen euh, métaux yi bàyyiwuñ ci dara côté ameublement côté électricité kon defe naa bâtiment la boo xam ne liggéey baa ngi soog a tàmbali loolu nag man li may wax ci waa Hizbut Tarqiyyah wax waxal na kenn ku ne ci ñun bàyyi xel ne liggéey baa ngi soog a tàmbali loolu nag kenn ku ci ne na xam ne liggéey sëñ Tuubaa bu taxawee dañ naan ku ci feeñ di nga feeñ tey di nga feeñ ëllëg ku ci raw na la wóor ne raw nga ba faw ndax këru xaside yi la sëñ Muntaxaa ko tudd ne moo koy liggéey kon ñun liggéeyu ñu ko de ñun sëñ bi ñu yóbbaale sëñ bi yóbbaale na nag mooy ak mooy mooy texe mooy kawe mooy mucc mooy ngërëmal yàlla. jërëjëf euh, euh, sëñ Youssou euh, mu mel ni kon xaaj bu njëkk bi jàll na. muy xaaj bu njëkk boo xam ne ndax yaakaar naa ku xam fi mu tàmbalee diggante sous-sol bi ak coulage yu rajo yi ak yeneen yi nga xam yëpp moo ci aju niveau bi ci topp bi ci toppaat ba ci niveau mag bi kon bu ñu nee day soo a xaaj day mel ni kon li ci des ci lu mel noonu lañ koy xayma kon nag looy séntu ci taxawaayu waa daara Hizbut Tarqiyyah ci xaaju ñaareel bi nga xamante ni moo des suñu dégg liggéey. waaw jërëjëf man yitte yi rek laa bëgg ñu yëkkati ko xam nga suñu jëwriñ ja ma koy tuddaat ndax mënu ko ñàkk di tudd ko tuddaat. nit moom bu liggéeyee yàlla ba jeex ci tàkk fu ñu tuddee tudd ko waaw bal ahyaa'un inda rabbihim yurzaquna farihiina bimaa aataahumullah min fadlihi kon bi sëriñ aatu di liggéey rajo bi bu leen fàtte ne sëñ bi da ko ne woon juróom benn fukki million rajo bi rajo bi nga xam ne mooy ci suuf sous-sol bi nga xam ne da koy suul moom def na ci trois cinquante deux tonnes de ciment xayma leen ko xam nga kon juróom-benn fukki millions yi weesu na ko foofu te loolu daa dafa suulu ci suuf fer ah def na fa valeur soixante million ci ton ci ci fer loolu moom loolu dafa suulu kon kooku fi muy fi mu jëm ñeme woon na ko fi mu jëm nag mën na tudd yóomi noonu bi xëy bi waaye yóomi noonu bi xëy bi soo xamee sëriñ bi tuuti ci moom xam wóolu sëriñ bi lan mooy njëriñam xam gëm sëriñ bi lan mooy njëriñam da ngay xam ne ci yàqin na la yóbbu loolu mooy loolu mooy wax ci donc kon fi ñu toll nii fi ñu jëm dëgg la li des moo ëpp li ñu def ndax gros œuvre li muy rëy rëy rëy rëy rëy rëy euh, seconde œuvre daf ko gën a ëpp valeur ndax mooy feeñ loolu nag moo tax ma wax waaye sëñ bi koy def waaye nag kenn ku ne ngànnaay li nga war a yor rek ci lay ñëwaat moom lu Mamadou Mountakha dama dégg mu wax ne diine sa diine su la ëppul doole rek sa diine woyof na sa diine nag su la doole moo tax dootoo woyefal jaamu yàlla boo ko mënee di ko def boo ko tëlee di ko def loolu moom ab jullit bu ne loolu da laa war nun nag suñu digganteeg Serigne Touba ni Serigne Abdoulaye waxoon ne ni jullit yëpp jaayee yàlla seen bopp noonu lañ jaayee Serigne Touba suñu bopp loolu mooy looloo indi euh, bayaatu ridwaan yadullah fawqa aydihim looloo ko indi moo tax jullit ñi daal di mujj dëgg la xam nañ ne li war yonent bi saa salaam war nañu waaye nekkate keroog suñu borom da leen yee ci leneen kii nag seen sëriñ la yaakaar leen ko topp ci ginnaawam xool ba xam keroog la ñuy soog dox doxinu murit keroog la ñuy wax ne inn la ñuy wax ak yonent bi saa ne ko inna lazina yu bàyyi woon nag inna maa yu bàyyi woon allah yaddulaa fawqa aydihim looloo indi suñu sëriñ ñu fonkee ko ni ñu ko fonkee teg ko fi ñu ko teg loolu rasulullah sallam da koo jàngale loolu c'était en 628 ah bi ngi ginnaaw bi ñu weesoo badar ñeenti at loolu weneen doxin la woo xam ne da nga am sañ ngaa wax ne keroog la yoonu murit sosu saaba yi tàmbalee muritu bu yonent bi sallallahu jàppee suuf si dañ koy barkeeloo ba daj ba daj ba daj ndox mu suuf su wow si bu yónnee ñëpp dañuy daw kenn dootul dox kenn dootu ko joor laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabii ca loolu la soq gooy loolu it muy am solo yoo xam ne ak muritu ca foofu la tàmbalee ñu xam ne kon si diine soo bañee mu woyof boo wëlbati ko yaakaar bi dangay ngay moytu sa taalibe woyof ndax da jaamu yàlla liggéeyale ko sëriñ bi liggéeyal sëriñ bi jaamoo ko yàlla kon nun liggéey bi suñu ko sëriñ bi joxee nañu xam ne nañu ëpp doole mooy na jiitu ci suñu yitte lu nu amit nañ ko ci def lii daal moom lay wax góor ñi di ko wax soxna yi am na nag saa su ne ñoo xam ne dañoo bokk ñoom yaakaar Serigne Touba bokk ak ñoom bëgg sëriñ Touba bokk ñoom xam ne lii njëriñ la saa su ne ñu ngi ñëw di ci jëf loolu war naa ko tudd ba ñu xam ko waaye sañuñu sax woo kenn ne ko kaay faw nga ñëw jàppale ñu ndax murit yëpp kenn ku ne yaa ngi téye ci dara yaa ngi yëngu ci dara te sëñ Tuubaa loo jàmbaare jàmbaare weesu woo si ndax bu dara guy ci sëriñ bi kon kenn ku ci ne fa nga ne da nga ciy góorgóorlu rek te xam ne boo gisul sa morom bi xamal ne mi ngi ci loo xam ne bu la ca fasaale woon dana gën a baax ci yow dana gën a woom ci yow lii daal tamit moo ñu dal suñu diggante ñëpp teewul nag am na ñoo xam ne saa su ne ñu ngi ñëw ne dama bëgg sama jëf dem ci kër xasida yi loolu moom du bunt bu ñu sañ a tëj ndax moomuñu ko loolu ñu ngi leen di sant di leen xamal ne lépp ni dox nag bu baax waaw xeebuñu xam-xamu kenn xeebuñu wërsëgu kenn ñu jëfi kenn waaye ñu ngi soññaat waa Hizbut Tarqiyyah ndax ndimbal na ca fekk ndoxal borom